démb ak barki démb mu wëlbatiku ne nañ ko jàppale parce que nguur gi mu ngi jeex président Macky Sall ak toogam wóoraatul moom moo ñu ko wax ñu ne ko ñun ay Macky Sall lañ tey ba suba bi mu xamee ne lànk nañ loolu ñu laaj ministre ministre dëggal loolu ne nañ ànd ak moom parce que président Macky Sall bu demee keneen kii wutu président Macky Sall ñëwee dina ko mën a fal mu toogaat ci nguur gi continuer di continuer di di di di di ay activité am. léegi yi nag moo waral lépp. financement yi nag moom ministre bi mu ñëwee yëkkati Touba une femme un masque jigéen ñi dañoo boole lu ñu am ak lu ñu amul boole lu ñu mën ak lu ñu mënul génnee seeni dërëm ànd jàppale ko muy defar politique am ñu ànd jàppale ko te xam ne président daf ñoo ñor te xeex mbas mi ñor ñu. ndax dafa wàcc te moo xam ne ñun ñëpp la engagé bi defee loolu balaa Touba une femme un masque jot. madame Mbacke génn na ak ay magu yam ànd ñetti nit ñoo xamante ne si ñoo koy taggali maamam. di ko sàmm mbayaanal ñi may wax xam nañ ko ñu ngi ci panel yi di wax lu leen neex. dégg nga ànd na ak ñoom Kumba sek ànd ak ñoom ñaana jeng ñoo xamante ne si ba ñuy liggéey ci parti bi démb ak barki démb newuñ fi président Macky Sall depuis ca dekkal ngor ga lañ nekk ak moom ak léegi. defe naa ne ñun kanam yi taxaw ñu ànd ak sunu yaay Soda Dieng mii ànd ak madame Ndiaye président Macky ko kooku kenn du ko wax yooyu jigéen mu ne ñooñu ñooy ñan ay def ñu cee joxul parce que nee na financement yi ñun liggéeyuñu e waay waay waay nañ wàcc ci teen yéen journaliste ngeen xool dañoo yor suñu place ñu ne petite et moyenne entreprise la ñun dañoo yor suñu ay place toog lu mat 4 mois ñu kon financement yi su ñëwee su dee 80 pour cent yi nee nañ administration la 20 pour cent yi war na wàcc ci politique bi mu wàccee dafa jël ay nitu boppam li ñuy wax bu ngeen ko saytoo yéen journaliste ngeen gis ko ñam ko jox yelloowuñ ko ministre finance na leen fi bu njëkk ñu jël ñu lekk bi nga xamante ne si nee nañ képp ku amoon financement lekk bokkoo ci yëfi ñooñu dugal ñii dugal seen i doom ñii dugal seen i xarit ñii dugal seen seeni seen i seen i rak nee na ñun fay ñu ñun on le di o et fort ñun mosuñoo jot financement état te ñu yàgg di xeexal état kenn mosuñoo dégg ñu kaas parce que président Macky Sall daf ñoo ñor liggéey gi muy liggéey Sénégal ñor ñu ñu nekk ci ginnaawam ministre de la femme nag jokkoo na ma moom parce que démb maa ngi jokkoo ak moom ay 2 heures du matin li mu wax mooy madame Mbaye Mariama madame Mbacké du moins Mariama Ndiaye moom lu mu def moo ko ko sant ce qui veut dire que ñoom ñoo nekk ci yëfi ñun nag dañuy interpeller le président de la république Macky Sall parce que lii premier pas la moom li ñuy def mu ngi ci kanam dañuy continuer le combat continue li ñu bokk te ñu ñu cee boole dañu ci boole jàmm ne boy bu nu ci boole te ñu bokk ci askan wi ndax nag ministre de la femme bi mu fi toogee société civile parti opposition parti au pouvoir ñëpp lañ cee bokk. mooy xam nañ ne liñ fi def injustice totale la. <laughs> jaarale wuñu mbir mi ci yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey la. ndax lan wëlbatiku naan ñoon panelu Touba une femme un masque bi ku ca génn moom madame Mbacke je le dis haut et fort bu ma ko dafa ne ku ca génn ñu boole la ci financement yi que ñun liggéey askan bi moo ñu ñor président Macky Sall moo ñu ñor liggéey la xam président dafa fonk jigéen président dimbali jigéen yërëm jigéen jàppale jigéen ñun nag taxaw nañ nag kër jigéen gii yor dinu ko xeexe moom ma madame Mbacke Mariama Ndiaye lu mu bax ñu ñeer ko lu mu bax